Mousse on Sénégal yi nekk ci ak nekk ci bitim réew maa ngi leen di nuyu tey dama bëggoon waxtaan ak sama mbokku transport maanaam askanu transport yépp heure bi parce que xam ngeen ma yàgg ngeen ma gis ci gaaru teer yi may dugg di waxtaan ak yéen di nemmeeku di leen nemmeeku ngeen di wax seen ay soxla ak seen ay jafe-jafe loolu yàgg na. dama xam coono bi ngeen di daj ci biir réew mi dama xam coono bi ngeen di daj pour Sénégal jëm kanam te kenn mënul jëmale Sénégal kanam te jëmale woo transport kanam xam ngeen ne fi mu nekk nii réew mi am nañ problème bu rëy ci xëyu ndaw ñi. te xëy ndaw ñooñu boo seetloo transport bi am na rôle bu am importance bu mu ci war a mën a jouer ndaxte ñi nekk ci transport yépp ñu ci gën a bëri ay xale lañu kon nag régler problème mu xëy ndaw ñi mooy aussi régler problème transport bi ma xaatimee son programme bi nga xam ne nii moom laa bëgg a proposer Sénégal dama jàpp ne def transport dafa am solo yëkkati ci transport dafa am solo askanu transport nga may leen ci doole dafa am solo loolu moo tax ma jàpp ne problème yi ngeen ma wax yépp li koy saafara mooy ma def benn fonds de solidarité boo xam ne nii cent millions de francs CFA la ne nii dama leen ko jagleel da leen permettre ngeen moderniser secteur transport bi ku ci nekk ci yéen ci oto yi ci wàllu crédit ci wàllu assurance ci wàllu assurance maladie ba pare aussi am accès au logement ndaxte nag képp kuy liggéey ci transport aussi war nga am ay dëkkuwaay yu mat sëkk foo noppalu ko ak foo dalu ak sa njaboot. le 24 mars 2024 bu ngeen ma falee dina nekk président des transporteurs dinaa jàppale transporteurs yi jàppale chauffeurs si jàppale coxeurs yi jàppale apprentis yi jàppale askanu transport yépp dina nekk aussi ki nga xam ne nii pour la première fois dañ ko fal président de la République mu jox askanu transport axam ak yelleefam ci réew mi. dama taxaw pour lépp loo xam ne nii. ci askanu transport dafa nekk tolof tolof ñu mën koo régler parce que yéen da ngeen am rôle bu am importance bi ngeen di jouer ci développement Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen sant.